adduna jeena bànneex ba jeena dudd ko jot na ngir bamba dem na adduna wéy na kanam la war na dundum ya naay na ngir bamba dem na adduna rus na mbaram ma res na sangem sa toj na ngir bamba dem na adduna rag na barke ba dem na meññeen ma ngir Bamba dem na adduna wéy na sopp ko wéy na gedd jot na ngir Bamba dem na teetal wéy na pulkure wéy na xëy xëy lu ngir Bamba dem na dëggal lay naak dëggal lay naak te xadi lay naak ngir mbar ma dag naak am denc lay naak am joxe jot naak xam jëfe jot naak ngir Bamba dem naak wareel lay naak xam na jee naak jot naak ngir Bamba dem naak dox di fa wéy naa mbuurantu wéy naa ma yàlla naa ngir mbar ma dem naa baneex wéy naa rikiku wéy naa xaajaanu wéy naa ngir mbar ma dem naa jub xati jar naa jubbantu jar naa tiitu wéy naa ngir mbar ma dem naa tuub moyi jar naa wut yàlla jot naa am yite jot naa ngir mbar ma dem naa fa garu jot naa ca warte jot naa te yewu jot naa ngir bamba dem naa ak rëy la naa te rox la naa wa yëf jot naa ngir bamba dem naa ab daya wey naa ab juddu wey naa am jikko wéy naa ngir Bamba dem naa bañante wéy naa werante wéy naa soppante jot naa ngir Bamba dem naa pas-pas ay ak jëf ay ixlaas ak wax ay ixlaas yëpp jot naa pas-pas ak jëf ay ak wax ay ñesal yëpp wéy naa waxante wéy naa defante wey naa bibbanti wey naa yëpp wey naa jikkale xay mbaa yëngu ciy mbaa def lu dul yëpp wey naa liggéey jar naa ak farla jar naa am jar naa waye di wey naa man ni yaa naa yóbbal ba tuur naa dundu ga néew wey naa naw ba yandoor di fekk say jaar di buur ni buur ni wey naa fanaana mu gaaw taxte lamba la gaaya ko jot naa fanaana mu gaaw taxte lamba la gaaya ko jot naa de force te fonki rakka te aji makka yëgal ni jot naa am diine jot naa xam sunna jot naa roy bamba jot naa ngir bamba dem naa am jaamu jot naa ak jaamu jot naa salaama jot naa ngir mag gi ñëw naa ceexaan yi wéy ngir mag gi ñëw naa ceexaan yi wéy naa ak ngone wéy naa sa cër yi doy naa jaamu ko war naa suquku te si jëfe ñaaw luf gënu ko ñaaw defar ko jot naa suy sët di daagu nga xëy di daagu li doy nag laagu soppi ko jot naa si kimburey laal sa ite sew laal rusal ki yoxaal rusal la jot naa yaram set laal nga ragg sa yaal sab xol tilim laal fot xol bi jot naa foo jëm deen waar ñuy déglu sag waar te amul ak laar sakku jot naa jot mbër jot naa xam jot naa am jot naa lu nekk jot naa du gaaya jot naa xam xëy jot naa xam pey jot naa atte jot naa dib xëj jot naa dib xut jot naa dib xawsa jot naa ak ndom jot naa am ite jot naa la xasa jot naa suppi ko jot naa dambar ye jot naa ambarke jot naa jos yaxe jot naa xar baaxe jot naa am jot naa murfi jot naa dib jot naa ngërëm la jot naa fajaata jot naa dab gaaya jot naa raw gaaya jot naa roy gaaya jot naa xumbuut ya jot na aw yoon wa jot na ya jot na tonoon ya jot na far yàgg jot na jug jot na ba yàgg jot na tey geesu wéy na ngir yàgg jot na jabula jot na xam yàlla jot na xam yàlla jot na do ngir ma jot na su mi jot na daw yàgg jot na rocc ku jot na nusru ya jot na wakkila jot na ak woore jot na ak dëggu jot na xam lépp jot na ak dëggu jot na xam lépp jot na dëddul na dunya watul pexeem ya dëddul na dunya dalal pexeem ya dëddul na dunya dalal pexeem ya dëddul na dunya dalal pexeem ya wutul ma duniyaa wattu ko jonna te foglu ak dee te xarlu ak dee yow bala ngaa dee xaroo ko jonna fàttaliku dee fàttaliku dee fàttaliku dee te gunge way dee fàttaliku dee te gunge dee ku nekk day dee fàtte ko wéy naa ay na suñu baay ay na suñu yaay ay na suñu gaay ñi ñëpp wéy naan ay nañu baax ñaax ay nañu bar ñaax ay nañu rëy ñaax ñi ñëpp wéy naan ay na jilaani ay na adnaani ay na tijaani ñi ñëpp wéy naan yeneen ya wéy nañ saaba ya wéy nañ xaws ya wéy nañ wali ya wéy naan alaaxiraay kër tey dëgg moo wóor alaaxiraay kër te dëgg moo waar sëriñ Musaa ne alaaxiraay kër te dëgg moo waar àddina day war bàyyi ko jot na du dul ma kër te jublu gaa kër te bari kër kër noppalu wéy na li doy ak waar na mën a def jaar fa gaay wey jaar waajal ko jot na li doy ak waar lii doy ak waar lii doy ak waar lii day ak waar ak waar lii doy na ak waar noo mën a def jaar fa gaaye wi jaar noo mën a def jaar fa gaaye wi jaar noo mën a def jaar fa gaaye wi jaar noo mën ko jot naa bis bu ñu demee saam yal nu gis daam tëgg sëriñ daam amina war na bis buñ demee saam yal nañu gis daam tëgg sëriñ daam alaaxiraay kër yaa saayidan fil maali inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun alaaxiraay kër kër bis buñ demee yàlla nu gis daam te gis sëriñ daam amina war naa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah rabbil aalamiin